parce que nous nous nañu rappeler l'histoire. histoire que Macky Sall mars 2021 bi les leviers tous les moyens de l'État bi projet Pastef la liberté sénégalaise, le président Ousmane Sonko après juin 2023 nga dafa que 45 milliards recruter ay policiers yu dul recruter ay gendarmes yu dul jeex ñi ànd ak moom ñëpp jàpp ne dafay def troisième mandat ñu n'ango takkal seen loxo ci recrutement de nervi ñëpp xam leen jënd ay pick-up nervi yi fas yéene rey nit ñi assurer leen impunité garantir leen kenn du leen malgré tout mënul woon tous sur le président Ousmane Sonko du léegi la koy mën man nag ci état laay liggéeyee ci justice je vous donne des renseignements précis xam leen au plus haut sommet de l'État et surtout parmi les forces de défense et de sécurité bari na ñoo xam ne d'accorduñ ci doxalin bi parce que xam nañ ne baaxul ci stabilité réew parce que xam nañ ne tamit dafa jéggi yoon favorable parce que nak baax nañu rappeler tuuti histoire sëgëm Macky Sall mars 2021 bi mu yor les leviers tous les moyens de l'État bi mu le projet Pastef song liberté sénégalais yi song le président Ousmane Sonko amul woon ndam kon nak bu len kenn né après juin 2023, nga xamni dafa waajal mbir mi da ñu jënd ay armes yu dul jeex milliards recruter ay policiers yu dul jeex recruter ay gendarmes yu dul jeex ñi and ak mom ñëpp japp ne dafay def troisième mandat ñu nango sen loxu ci recrutement de nervi ñëpp xam leen jënd pick-up nervi nit ñi ñi assurer leen impunité garantir du malgré tout mënul tous sur le président Ousmane Sonko du légui la man nak ci état lay liguey ci justice lay liguey je vous donne des renseignements précis xam len né au plus haut sommet de l'état et surtout parmi les forces de défense et de sécurité bëri na ñoo xam ne ci doxalin bi parce que xam nañ ne baaxul ci stabilité réew mi parce que xam nañ ne tamit dafa yone